benn son waali bu muy naan maa sant yàlla maa ngi koy ci séeréer migit mu rooge tanstantararam migit mu rooge migit mu rooge afiya xamo kiigim kawulo biyo ndewe soldat fe général migit mu rooge tu vois loolu yëpp dóor di jéem a wax ci séeréer li waali di wax ci wolof ñoo ngi koy jéem wax ci séeréer xam nga daana ma sant yàlla tastararam ma sant yàlla ma sant yàlla def na ma woykat géwél doom bu gore soldat général ma sant yàlla ñoo ngi koy tracé kon nag dañuy jéem rek fii kenn mënut jéem a fi nekk waali kaar macha allah jël na doon na baayam ba macha allah dafay woy lu neex luy dugg ci yaxi doomi aadama yi dañ dama koy déglu bu baax bu ma bu may dégg ñu naan bu may di bu may dégg ñu naan maanaam dangay ba ngay bàyyi sa papa woy nga nga nga nga num tudd waaw bu ñu bu ñu waxee ne dangay bàyyi li sa papa woy nga dem jëli leneen e, léegi na nga bàyyi sa woyu papa yi ñeneen di di ko woy di ko utiliser yow sa moomeel la du loo sàcc yaa moom ku ko jël ku ne moom moo ko sàcc wala mu for ko waaye yow yaa ko moom sa papa moo la ko construiral yaa ngi dégg sa papa moo ko construire ba fi nga jël maag yoo niroo kaa sama papa dafa construire dem ba moom yow sa papa construire dem bayi la ak mom ku la ci ŋàññ ku ne xamul lim lay wax man de man li fi sama papa bayi Nila la koy téye fukki loxo ak juróom ken mënu ko dindi sama loxo Ken mënu fokati wa euh damon na nak 2S ñu baax ma sha allah mu fekk fa Sofia Khadija ak am mignon ñu dalaluma tetema vraiment maam ci lu ma neex ba léegi maa ngi ak uh, contact Sofia ñu doon ña nga dañoo yaatu doon nit ñu baax ña nga xamante ne yal na leen yàlla musal ci cat yal na leen yàlla yokk sutura man dama leen di ñaanal chaque jour parce que doomi aadama bi bëgg nga réussir mooy ki nga xam lay ci li nga def ci lu baax nit woyof nga borom karaw lu dara Et vraiment nous ñu baax lañ